te mooy wéyale li nu tàmbali woon démb ci aaya jooji nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala danu ci xamal ne lépp dañuy bëgg am na ci ay magasin yoo xam ne ni mënuñu koo eh, jeexal waaye nag dara du ci wàcc te waxtoom jotul muy wax joo xam ne nii ju mat a seetantal la ci ab jullit ndax dafay yokk xiit day tax nit ki am jikko yu rafet yàlla na ko suñu borom tabaaraka wa taala defal. kon ñoo ngi ñaanaat mbokki jullit yépp ku dégg xikma bi nga jottali ko sa mbokkum jullit ku ko def yàlla na la suñu borom dimbale te sutural la eh, tey ñu indi ci yeneen i wax it jox waxi mag ñi waaye ñu tàmbalee ko sëriñ Bay Jaxate bayit yi muy wax aay ji rek la koy firee mbokk yi suñu borom tabaaraka wa ah bu ko sooboon kenn du sonn konoon àjjana la ñuy bàyyi duñ ñëw àdduna waaye àjjana ak àdduna dañoo bokkut àjjana mooy foo xam ne nii coono ak naqar ak tiis amu fa waaye àdduna nag dafa nax dafa jaxasoo ki mbir yoo xam ne nii faaw ñu xam ne noonu la ko yàlla bindee te kenn mënu koo soppi walan tajida li sunnatillahi tabdilan tëraliinu suñ borom kenn mënu koo tiri kon la ci dimbale ab jullit mooy gëm ab dogal ak gëm attey suñ borom nangu ko ak am yar ak i teggin ci sunu diggante ak sunu borom yàlla na ko sunu borom tabaaraka wa taala defal moo tax sëñ Bay Jaxate di wax ne yàlla nga yor lépp lu jaamam di bëgg ko wut moo dàq fab loola daal koy jox fi saasa mu yor yàlla nga yor lépp lu jaamam di bëgg ko moo dàq fab loola daal koy jox fi saasa mu yor lotul filaf waaye mboolem lépp luy xala am sàkkal na koy saaki waxtoo ki sabab yu ko jur mënoon na bis boo jógee yow mii di tàmbali mbay mu daal di màggal sa mbay moo mi ca bis ba mu ñor mënoon na bis ba nga juddoo it nga toll ni sa ndey te daal di sa baay it sëkk nag bi la jur mënoon na la daal di fab it teg ci aljana jee nga xam ne doo dox ci wopp ak dee ki tiis ak lor te mën na la daal di jox tey jii sa mépp mébét sa xol ne guyyu te dootul war waree ki naqar te mën na laa daal di dàkkul lépp loo gërëmul ngay mucc koy musle foo jëm far di mbër mu ñu far te mën na laa foofu fi saas teg ci kaw ña ci kaw nga mel ni ab jant mboolem ñëpp féete la mboolem ñëpp suufe la far te mën na laa foofu fi saas teg ca kaw ña ca kaw nga mel ne ab jant mboolem ñëpp suufe la far yii yëpp mën na ko mën naa def yudul yi la it loo gis amul nag da ko soobul te xam ko bu wér bul bëgg nag lu ko soobul bëgg loola du mbir ku bëgg lëf lu ko soobul ñàkk ndam moo yar ndegam da ngay bëgg bëggal yar bu mat bu rafet bëggub yaray mbir wutal ab yar te def li la war ku ñàkk ab yar mosub yar faw ab yar a gën ku ñàkk ab yar mosub yar faw ab yar a gën raasal ma ab yar ba gis koo gis te sëgg te for telef du ab yar lu dul sant dogal te gërëm ab àtte yàlla na nu for ab yar te jàpp ko yor kon lii boo ci boo ko seetal te seetantal nga xam ne aay jii rekk moom la ci sëñ bay jaxate di firi te it am na fenaan fu muy waxee ne doylul te bul yitte woo wërsëg ba génn ndigal ni du wërsëg du ko raw wërsëg akub diggayam lu ci ñëwam jotugul loo ñoddi ñoddi du ñëw loo xam ne xas na ci ñëw loo dàq-dàq du dem am na fu muy waxeet ne lu jot nga jot ca te kat loo xam ne jot ca jotul doo daw ba jot ca bàyyil fér-fér ji moo lu la jot sëriñ Malick Bassine si daana wax ne àdduna de waay ñaar ñëwu fi ñu ne ko ban ak ban mu ne lu neex ak lu doy ñu ne waaw kon nu ñuy def mu ne xanaa doyloo ak neexantal rek lii doyut sax waaye nag naa ci jàpp rek doyloo ko lii neexut sax waaye maa ko neexantal rek man it ma teg ci ne lu dul mat ak mat koy mottali gannaaw àdduna du mat kon nañ jéem a mat ndax ñu ndax ñu mottali ko damay faral di waxit ne àdduna ndox mu tàng la kenn mënu koo seral waaye nag ku ne yaa cay def lay tax nga mën koo naan waaw mag ñi sax nit ñi wolof dañ day wax ne mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax kon nag kenn ku nekk boo bëggee sa àdduna tane danga nga def suukar te bañ caa def kaani ak i poobar ak i xorom su bari boo ko defee rek sa àdduna day daal di naqari nga mere nit ñi te ñu la dara kon nag nañ góor góorlu te doyloo suñu borom tabaraka taala te yéene ñëpp jàmm te xam ne kenn mënta jël sunub cër yàlla kenn ku nekk lam lam namm ci yow bind na ko ba noppi waaw nañ góorgóorlu bu baax a baax ñoo ngi santaan mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi bu baax ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul mi ak mbooleem yiñ ci jot fan yi yëpp ci ay coup de téléphone ak yi barkeelu yoo xam ne nii wax dëgg yàlla moo andi daara moo moo moo jur daara ji ñu nekk daara alquran ji te ñoo ngi ñaan weesu ko it moom doon ay daara yi daara ba daj réew mi ba génn réew mi te yàlla na doon liggéey bu sunu borom tabaaraka wa taala nangu